Hmm. waa sëriñ Daawur borom noorul Jalaal maa ngi liggéey ci euh, alxuraan di liggéey it maanaam ci ngir euh, jàppale doomu aadama yi ndax jamono ji dafa toll foo xamante ni euh, ku bëre ñu bëre dal sa kaw ku bëre wutit ñu bëre dal sa kaw. jamono jii nag suñ boroom am loo xamante ni dañu koo defal baaxe na ko euh, ñu ciy liggéey nag di ci faj aajoy jaam ñi nit ñi di bawoo fu ne dinu fekk fi nu fu nu nekk ñu ci def di ci dindi yàlla dogal fii ñu nekk nii ci ndakaaru maris ku ne fii ñëw yaakaar naa képp koo xamante ni jëflante na yow ci wàllu ñaan ah sa ajo incha allahu rabbi dina faju ndax fii li fi nekk yàlla suñ boroom moo ko jox ñu dondoo ko it ci sunu maam looloo waral nag ah ñu ne fii nii rek ngir bëgg di dimbali jaam yi waa ñaan moom euh, kenn ku ne daanaka man boo xoolee mën nga koo def waaye yàlla suñ boroom daa sàkk ay jaamam te yemalewu leen ñii da leen compal ñii li ñu am bariwut ñii da leen a jox ba nu doyal waaye ñun lii ñu nekk nii dañ koo donn ci sunu maam suñu maam ji nga xamante ni léppam Cheikh Awa la ñu tuddee nu ko Cheikh Awa Balla seexal ko doonoon sëriñam ñu donn ci moom ñaan beneen ba ca topp it ñu gëstu ko ba xam ci loo xamante ni leer na nu lii nii maanaam lu nu gëstu la jàng ko it ba man ko waaw déedéet waaw. waaw moom tëbuma tëb rek di ko def ndax dama ko gëstu ba ba tërbiwu ko gëstu ko ba man koo def man koo def ngir di ci faj aajo jaam ñi ba noppi la sama maam euh, euh, daan def sama maam sotti ko ci man ndax sët mooy dond maam te it euh, dañ ko dond bu wér wér di ci faj aajo jaam ñi yaakaar naa ni tawat ju nit mën a am ci àdduna bu nu jëflantee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam suñ boroom teggil la tawat jooju noonu waaw bu fekkente ni képp koo xamante ni sa mbir daa taxaw nga bëgg sa mbir di dox ba faaw buñ ci jëflantee ci kàttanu yàlla mbir yi day dox ba faaw moom waaw. mën nga yëngu ci ñaare wàllum kayit ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew te mënunoo am ay kayit walla mënunoo am liggéey bu baax. bu leen neexee mën nañ leen bañ yónnee benn ñaan defal leen liñ leen di defal ci kàttanu yàlla du yàgg ñu ami kayit liñ bëgg lépp ñu mën koo am bu fekkente ni képp koo xamante ni yaa ngi bitim réew say mbir dëgër mënoo am dara loo yaakaar mu tas loo dugg yit am ca ay jafe-jafe ci kàttanu yàlla buñ la xoolalee say mbir buñ la buñ la liggéeyalee liñ lay liggéeyal ci kàttanu yàlla dinga sant beneen ba nga xamante ni moo ci topp képp koo xamante ni da nga am euh, loo xamante ni dalay daaneel guddi di la daaneel bëccëg wàllu feebar boo xamante ni faju nga ba sonn te munoo munoo wér bu suñ bët yi ñeentee ci kàttanu yàlla loolu danañ la ko saafaraal ba mu ba mu ba mu ba mu saafarawu wàllu catak ak liggéey euh, lépp loo xamante ni luy gaar nit la ci kàttanu yàlla képp koo xamante ni jëflante jëflante nañ ceeg yow suñ boroom dana la ci defal ndam waaw ñi am jafe-jafe liggéey moom ñi nga xamante ni dañoo am problème mu liggéey ku ci ñëw ñu raxasal la sa yaram ba mu set ci kàttanu yàlla bu doon da ngay déposé te kenn sax du la jël boo déposé incha allahu rabbi dana la may wàllu këyit moom yàlla dogal na moom mën nañ loo xamante ni ñeewuñu ci kenn te lépp luñ ci bëgg def danañ ko ci def képp koo xamante ni sa liggéey daa taxaw wala nga bëgg entreprise ba nga nekk di dox ba faw ci kàttanu yàlla boonu boonu boonu boonu boonu buñ déggantee nga ñëw ci ñun yaakaar naa ni di nga sant di nga gërëm ndax loolu lu ñu jàng la ba man ko wàllum këyit nii moom ak ak ak wàllum fal nit ak li moom yàlla dana ko baaxee ñu man ko waaw man ko bu wér a wér nag mhm. waaw ku ma ci seet si kàttanu yàlla moom bitim réew maa ngi fay jëflanteek ñoo xamante ni monde bi yëpp daanaka fépp foo dem ci réew mi am na ñu ma fay jëflanteel te yaakaar naa bu ñu ko seetaanee danañ danañ ma déglu xam ne lii lu wér la ndax bari na ci ñoo xamante ni foofu danañ déggante heure bu ne taw seen wàllu kayit du yàgg maanaam ku ci am ay jafe-jafe ca bitim réew jafe-jafe boo mën a am ci kattanu yàlla dañ la koy saafaraal ba mu saafarawu ci kattanu yàlla am na ñoo xam ne danañ leen liggéeyal jox leen ko yónnee leen ko ci GP yi am na ñoo xamante ni dañuy tëju ñaanal leen ci kurus suñ borom defal leen seen i mbir bu dee politiciens yii la képp koo xamante ni da cee bëgg a falu wala ñu yokkal la sa garaat bu suñ ba di ñeentee ci kàttanu yàlla ñu fal la waaw loolu moom fii moom ak fal am na fi moom. Mhm. waaw foo mën a nekk nag ci àdduna boo nekkee bitim réew fu mu mën a nekk ci kàttanu yàlla da nga mucc ci loolu. waaw xam nga liggéey moom <clears throat> baaxul ndax jamono ji ñu toll mooy li ma wax rek dangay ngay bëre ñu bëre dal sa kaw bëre woo ñu bëre dal sa kaw ndax dafa am ñoo xamante ni danañ liggéey nit yàqal ko àddunaam sépp waaye ci kàttanu yàlla man ci ñi ma gën a sawar sax mooy ki nga xamante ni dem na ci sëriñ bu ne la mu bëgg amu ko. moo xam moo xam dañ ko liggéey yàq àddunaam bu ñëwee ci suñ jëmm ji ci kàttanu yàlla bu dee liggéey bi mat na vingt ans buñ ko sangee liñ koy sang jox ko ko mu jëfandikoo ko fii ak soixante-dix ans liggéey dootu ko jàpp lu mu fekkoon ci yaramam ci kàttanu yàlla dana ko dindi bu daawut nelaw it dana nelaw incha allahu rabbi lépp ci alxuraan laa koy liggéey euh, boole kook yi ma koy booleel ndax dinaay liggéey ci sunguf ndax am na ci ñoo xamante ni dañuy bëgg lu gaaw waaye sunguf yor nañ ci ay mbir yoo xamante ni ay jooni jooni la waaye nag bokkut ak alxuraan ji ndax alxuraan ji li nga xamante ni moom lañ ci man dañ ciy fal di ci folli sunguf si liñ ci man dañ ciy fal di ci folli waaw waa bayre moom am nañ ci yoo xamante ni moom si kàttanu yàlla képp ku ñu ko defal dan la koy defal jox la boo bëggee boo bëggee ñu wàññin la ko mu wàññi moo xam góor nga wala jigéen boo ci lépp looy yëngu te bëgg ci bayre ci kàttanu yàlla lépp looy yëngu te bëgg ci bayre incha allahu rabbi bu ñu la ci defalee bayre kun fa yëkkoon defal la ci bayre boo xamante ni àdduna sépp lay tudd te kenn du man ci yaw dara ubbiku am nañ ci ubbiku yoo xamante ni suñ ko liggéeylee nit ki day ubbeeku ba faw dootu tëju waaw ubbeeku yoo xamante ni day ubbeeku ba faw dootu dootu tëju ubbeeku yi nag am na ay sangat am na ay sarax am na ci yoo xamante ni sax ay jaaro la yoo xamante ni ñoo koy liggéey jaaro yi nga xamante ni moom la ñuy liggéey buñ ko liggéeyee ba pare ci kàttanu yàlla képp ku nu jox jaaro bi nga takk ko di nga am alal dinga mucc te di nga fi yàgg waaw jaaro la yoo xamante ni jaaro yu yu yu yéeme la yoo xamante ni boo ko takkee ci sa loxo fanaanoo ko rek da nga xam ne lii nu la jox nii ndawut waaw waaw cat moom baaxut cat moom dañ la koy dañ la koy dañ liñ lay jox saafara si ñu lay jox bu ñu la ko joxee boo ko sangoo sangoowaat ko di nga tëdd di nga am loo gis di nga xam ne am na lu bari loo xamante ni dañ na ci yow ndax cat moom baaxul day yàqal doomu aadama cat moom baaxul day yàqal doomu aadama am na ci loo xamante ni kuñ ko jox mu nekkaale yow ci kàttanu yàlla bu àdduna sépp maase woon di la diir sax duñ la jam waaw. Mhm. Mhm. waaw dëgg la moom moom moom cat moom li muy gàllankoor dafay bari dana tëj nit. ba lépp lum yaakaar du ca jot dina tëj nit ba lu mu amit maanaam du taxaw ci moom cat moom lim man dafa bari waaye lépp loo gis ci àdduna rek fi mu ne nit a ngi xëy di romb njariñam waaye lépp loo gis ci àdduna rek aw yoon la képp koo xamante ni da ngaa catu dañ laa catu mënoo am dara ci sa àdduna boo ñëwee fii ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinañ la simpil cat li ni dégg incha allahu rabbi waaw waaw kaaraange yi ñu yor maanaam képp koo xamante ni danga am sa soxna te bëgg ko lool mu bëgg la nga bañ seytaane dox seen diggante am na ci liggéey yoo xamante ni suñ la ko ci liggéey ilaa yowmal qiyaamati la maanaam dara da ko mënut nit mënu koo yàq nit mënu leen a catu maanaam kenn dootu leen mën a dëddale tamit ci àdduna ndax euh, yàqu-yàqu yi day bari ci problème sëy yi képp koo xamante ni da ngaa bëgg a téye sa borom kër bii sax ba doo ba ba ba ba doo ko ñàkk am na lu lay jox loo xamante ni ci kàttanu yàlla boo doon doyal sax yow doo mun doo doo ko mën a bàyyi ci sa àdduna waaw. waaw jafe am doom ak ci jigéen ñi waaw loolu. loolu loolu ñaare rab dina ko def rab dina téye nit muy jigéen muy góor mu bañ a am doom. wala yow mii ku jigéen rab ki rab bi dina def noo xamante ni saa boo ko amee rek saa boo ci boo ci nekkee ba ci am yaakaar rek rab bi daal di koy rotal mu rot loolu rab moo koy def dañ koy faj bu dee jigéen joo xamante ni loo am mu dellu wala munoo am doom moo xam vingt ans nga sëy ci kàttanu yàlla boo ñëwee ñu traiteral xool li nga xamante ni moo nekk ci nit ñu dindi la dindi la rab bi dégageel la ko maanaam defal la loo xamante ni ci kàttanu yàlla maanaam nga commencé moom yëg sa bopp yëg goo xamante ni moom incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla da nga xam ni li ne woon ci man deñ na ci man ndax rab day téye nit day téye góor day téye jigéen danay waral ku góor ki di mer wala ku jigéen ki di mer loolu nag dañ koy faj ci lu gaaw rab moom dañ koy faj dindi ko dindi boo am anam boo xamante ni dañ la koy dindil ba dootu ñëwati ci yow moom rab waaw. waaw loolu wàllum wàllum rab ci lay bokk wàllum rab moo lay def loolu ndax rab dina la def loolu loo xamante ni xiirtal la ci nit nga bëgg kooku lool ba doo ko yemaleek dara waaye da ngay jékki-jékki di ko mel rab mooy def loolu waaye loolu fi mu ne ku bëgg jëkkër ci kàttanu yàlla bu buñ la ko liggéeyee weer du ko mat ci kàttanu yàlla nga am ko weer bu dee yow mi bëgg jëkkër su dee yow mii nga xamante ni da bëgg jabar ci kàttanu yàlla liñ lay liggéeyal buñ la ko liggéeyal weer tamit du ko mat nga am soxna bu doon da ngay xëccoog koo xamante ni téeméeri nit a fa nekk ñu la joxee liñ lay jox ci kàttanu yàlla yaa koy jël te kenn du ci man dara incha allah hmm. waaw. waaw incha allah loolu moom loolu moom lu gaaw la waaw mbiru jëkkër ak mbiru mbiru soxna doon na loo xamante ni liggéey bu gaaw a gaaw lañ ciy def nit ki am ko te bu muy buy amit day am ku ko gën am na ci ñoo xamante ni nag ay tubaab la ñuy bëgg. waaw am na ñoo xamante ni jabaru soxna su tubaab lañ bëgg wala ñu bëgg soxna euh, jëkkëru tubaab waaye loolu dañ cee yor yu yéeme fi mu ne bayre tubaab rek dañ cee yor yu yéeme yoo xamante ni soo ko jëfandikoo dugg ci seen biir lu ñu yor dinañ la ko jox ñoom tubaab yi. waaw waaw ñoom ñi ne foofu noonu bitim réew di yëngu ci wàllu nasaraan si am na ndomb gu ñuy liggéey goo xamante ni da xuus ci biir nasaraan si di jëflanteeg ñoom di def lu la neex ci seen biir